tay mu dajale du lo xamni coïncidence je peux dire que coïncidence il y a deux événements qui coïncidé muy toll na mbas mi ak ñuy dugg ci wéru koor gi donc li muy lu mu daan def avant le avant avant mbas mi di am chaque mois de ramadan da daan jël xol ses partenaires xool ses collaborateurs ses amis ñeu ci doole yi aussi vraiment ñeu pour jappalé len pour weer bi nga xamé ni que weeru ñaan la wéru mbékté la ku ci nekk am loo xam ne mën nga ko suturloo mu néew mu bëri bon on n'a pas la prétention de couvrir tout Thiès parce que loolu mooy suñu yéene waaye euh, ñoo ngi jéem daal ñoo ngi jéem chaque année ñoo ngi def ay jéego di ñaan yàlla aussi mu yokk looloo tax tey bi ñu ñëwee ñu ne nañ ko yokk. mbir mi amee mbas mi amee jóg nañ ci faire des euh, séances de sensibilisation mais aussi accompagner la population par des dons de hygiéniques mais aussi par des dons alimentaires donc rek que je rek remercier mm, le gouvernement du Sénégal euh, en particulier le président de la République président Macky Sall a initié un plan euh, de résilience économique et sociale pour indi apporter son soutien à l'endroit de son peuple parce que l'idée tey bu ñëwee dal àdduna mu nekk inquiétude si àdduna bi yëpp laal ay secteur te tey mën nañ ni secteurs yi nekk de feebar bi na donc sous le président Macky Sall lu wootee euh, plan de solidarité donc je pense que di tey ñun kenn parce que euh, nous accompagnons les pouvoirs publics on soutient euh, la politique du président de la République donc pour xam le mouvement Siggi Jotna xam ko ni dynamique de soutien envers la population Je suis comme ni ko ko encore une fois plus indi suñu soutien envers la population thiessoise parce que un intérêt c'est le développement de Thiès Nous intérêt un le am le dénominateur commun la Thiès donc tey su su mbir mi laal askan wi ñi nga xamante seen loxo seen gannaaw dañuy soutenir avec des dons alimentaires donc gis ngeen en partenariat aussi avec de mes partenaires yi ma accompagner yi pour def euh, lancement de la distribution des dons alimentaires jëm ci jàppale askan wi ci koor moo tax euh, dinañ joxe ceeb dinañ joxe suukar dinañ joxe meew dinañ joxe joxe café dinañ joxe dëwlin pour accompagner ko les familles ndax tay am ñu bari ño xamanteni ni seeni activité taxawna na ndax ndax euh, feebar bi nga xamanteni mom mo fi nek di rek ñaanat nit ñi da leen inviter que ñu respecter les mesures barrières. autre devoir ma ngi leen di ñaan ñu moytu ku nekk xam feebar bi lu muy bañ encombrement ak déplacement dañu toog suñu kër yi soxla ci biti parce que kat lii dañoo war suñu responsabilité ku si xam ni si nga ndax bi d'ailleurs maa ngi si occasion de féliciter le gouverneur si acte responsable pour transférer le yi ñu